asalaamaaleykum mbokku internet euh, de Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu saa su di safoo di tiitaro di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéenay suivre suñu ay plateforme lu ci mel ni YouTube Instagram ba ci Facebook ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. di leen ñaanal jàmm ginnaaw jàmm ci la lépp xaj te ginnaaw jàmm gën jamaa yàlla na ngeen am jàmm bu baax a baax a baax tey nag euh, euh, dañ fee fas yéene dalal kenn ci ki nga xam ni macha allah nee naa la euh, benn chargeur communication la tey dafee teewal benn kilifa ñu gën ko xam ci Serigne Fallou macha allah borom mos xam Serigne fàllu Mbacke borom mos xam tey defe naa ni moom la fi toogee toogaayam parce que sëñ bi macha allah nee naa la liggéey géeg yëpp a ko xaw a tënk ba tax na génnam yombul waaye kenn ci ki nga xam ne moom mooy gérer communication moom mooy gérer léppam mu fas yéene fee ñëw tey leeral benn loo xam ni euh, euh, euh, benn benn benn rumeur yoo xam ni dawoon na fi jàll na fi loolu yëpp dinañ ko waxtaanee waaye balaa loolu ñu daal koy nuyu moomoo ñu ngi lay nuyu. waaw maam yu maa ngi lay fay di la nuyu waaye tamit di nuyu internet Sunugal 24. di la jaajëfal bu baax a baax xam naa nag tey internet yi dinañu xaw a jaaxle. waaw tey nag du ma fi toggee toggaayu animateur. Mm-hmm. amaana dama fi toggaayee toggaayu sëriñ Fall borom mas xam. Mm-hmm. nag dafa am ay rumeur yoo xamante ne dafay jotoon am te kooku day sama wëlëre di sama xarit euh, ma sës ci moom macha allah kon amaana bu yooyu amee euh, suñu borom def may yëngu ci yu mel nii mm. war naa ko fi mën a teewal daal ko ci waxtaanee muy Serigne Fallou Mbacke borom mos xam mais ana mu baax mi ngi si jàmm baax waaw Serigne bi moom mi ngi si jàmm bu baax hmm. xam nga moom nag yàlla dafa def dafa mëneewul wax dëgg la waaw waaye man mi nga xamante ni maa fare ci wax waaw eh, ma daal di koy waxal macha allah ku am kuddu doo lakk nee naa leen macha allah moom rek euh, doy na euh, communication mm-hmm. vraiment di ko jaajëfal bu baax a baax mm-hmm. tey mu am yenn rumeur yoo xam ni mm-hmm. jot na fee jàll euh, ba ñu bari génn sax di ci def ay vidéo ci li nga xam ni tey jii nii foofu laay tijjee débat bi muy mos xam Mhm. parce que euh, dañoo gisoon kenn koo xam ne benn waay joo xam ne daf ko jënd. Mhm. ñu ne ko jëlal benn kudd mu daal cee ëppal xër ci jël ñaari kudd. Mhm. ba guddi googu mu tëw a wàcc ci kaw jabaram. ba mu gi sax dégg naa dafa dem ba jabaram sax. am ay difficulté wala jabaram sax xaw a am loo xam ne tey jii nee naa la ko mel ni lu ko xaw a gaañ sax. est tey mën nga ñu indil ay leeral ci ñi nga xam ne comprendre luñ. rumeur yaa ngi daw fu ne ku nekk ngi génn di def ci loolu noonu. waaw dama koy daal doore ci ki nga xamante ne moom mooy kan kan mooy Serigne Fallou Mbacke borom Mosxam. Mhm. Euh, Serigne Fallou Mbacke borom Mosxam surtout Serigne Balla Coro la. Mhm. moom Serigne Fallou Mbacke ndaw la goo xamante ni dafa jàng ba jàng jotee fépp foo xamante ni doomu nit ku baax jaar na fa. Mhm. muy doomu soxna muy doomu nit ku baax di daw wàlliw jaar na fa moom jaar na fa. waaye dafa dem jàngi xam-xam tegu ci loolu mu dem jàngi xam-xam. dem jàngi xam-xam fépp foo mbooleem foo xamante ni mhm. nit war na faa mën a jaar dem jàngi xam-xam moo xam ci biir réew mi la moo xam bitim réew la ok dem ba nga xamante ne nag doon na ndaw jàngi bi mu jàngee mu taxawal bi ñu entreprise bi nga xamante ne ñu ngi koy wax mos xam mos mhm. xam sax am na doon na loo xamante ni kenn dootu ko présenté Sénégal yi parce que yaa ngi gis célébrité yi ñu ngi koy mhm. taf yaa mu doon garab goo xamante ni wax dëgg fa la garab la guy dox ci ay ay pàcc ay xeetu garab moo xam émorite la moo xam impuissance sexuelle la moo xam dafay dox ci li nga xamante ni moom mooy ndoxum siti mhm. léegi damay daal di ñëw ci rumeur boobu nga daal di wax maanaam dafa am garab gi dosage boo xamante ni maanaam bu fekkee mhm. euh, ci néew kattan la maanaam mos bu fekkee ci néew kattan la mhm. euh, dafa am loo xamante ne dañ la koy limité maanaam jëlal benn kudd wala jëlal ñaari kudd amaana nag kooku jour boobu journée am dafa daal di neex mu euh, xër mu daal ci xër jël ci lu ëpp ay kudd <laughs> boo tax na sax maanaam bu waroon na yegg yam Ndakaaru dafa mm-hmm. jaa xaabaabal jàll ba gore euh. loolu nag lu nit mën a xam la mais doon na garab goo xamante ni wax dëgg fa yàlla euh, lii nga xamante ne moom mooy impuissance sexuelle mm-hmm. jamono ji fii ci Sénégal moom mooy bi nga xamante ni moom la ñu ràññee te moom la ñu xam mm-hmm. te mos xam Euh, gars yu bari nag dañ si faral euh, léegi-léegi di xaw a réer mos xam nekkul ni garab gi moo tudd mos xam entreprise bi moo doon mos xam entreprise bi tudd mos xam waaw bi moom moo tudd mos xam ah. léegi moom mos xam moomu noonu dafa am ay ndaw yu fay liggéeyee mhm. entreprise la boo xamante ni dafa am ay ndaw yu fay liggéeyee léegi ci ndaw yooyu dafa am ku leen employé mooy moom Serigne Fallou Mbacke borom mos xam moom la ñuy wax sax fal lu Mbacke mhm. léegi ci biir entreprise bi mu ñoo xamante ne ay xale lañ yu xarañ yoo xamante ne ku nekk sa pàcc dafa am ci loolu mooy dox. Mhm. maanaam tey jii garab yi dafa xam ñoo xamante ne spécial lañu koy dugal ci laboratoire. ndax mhm. koy saytu xool ko xool ba xam du am benn effet secondaire. Mhm. bu ko sëñ bi defee ba pare. mboolem mu nga xamante ne composé ne garab yi nga xamante ne moom moo war a dox ci impuissance sexuelle. ndax nag garab gi wax naa la ko. dafay dox ci li nga xamante ne moom mooy impuissance sexuelle mhm. dafay dox ci li nga xamante moom mooy ndoxum siti dafay dox ci li nga xamante moom mooy hémorroïde ak leneen ak leneen mhm. waaye dama lay njëkk a jëlal pàcc bi nga xamante ne moom mooy impuissance sexuelle moom impuissance sexuelle sëñ bi eh, dafa dem jàng ni ñu composé garab yi moom mos xam dafa dem jàng nu ñuy composé garab gi ndax nee naa la mbooleem bi nga xamante ne jàng jàng na fii ci biir réew mi jàng ci mbooleem koo xamante ne mbàkke mbàkke la ndax nag moom Serigne fàllu Mbàkke la tudd te mbàkke la mhm. te xeetu mbàkke dafa am foo xamante ne moom lañ leen cëralee mhm. waaye moom mi nga xamante ne moom moom moom garab gi dem seetu ko mhm. dem ba ci dëkk yi moo xam réewum tubaab la moo xam réewum tugal la moo xam ci réewum tubaab yi la dem seetu li nga xamante ne moom mooy garab gi nga xamante ne moom mooy mos xam dox ci wàllu impuissance sexuelle dem jàngi ko xool nu ñu composé nu ñu dugalantey garab yi ba nga xamante ne lii boo ko jëlee doo si mën a am benn impuissance sexuelle. Mhm. nga daal koy jël mu dem jàngi ko dem xooli ko. Mhm. dem saytu ko. ba nga xamante ni wax dëgg fa jot na mu indi ko Sénégal mu daal ko indi Sénégal. mais gàllankoor parce que tey conséquences yi ci maanaam comme ki ci mel ni ki ngeen ki ngeen ki garab bi. Mhm. ne leen ngeen ne ko na jël benn kudd. Mhm. mu daal di xaabaabal comme sànq jël ñaari kudd. Mhm. est-ce que tey jii nii jotul maanaam nga wax nit ñi. képp koo xam ne jël nga ko bu ñu nee la euh, jëlal temps de kudd jëlal loolu ba njee xër leneen après loolu ci dal it moom la. waaw waaw loolu amul sax gàllankoor man mënu ma koo jàppee gàllankoor loolu xër laa ko mën a jàppee. Mm. xër gi mooy maanaam euh, defal tuuti ci cin li xorom. waaw nga jël rek daal di xëpp. Mhm. amaana sa xol moo toll foofu. waaye amul kenn koo xamante ne mi ngi ciy loru bu ñu ko dalee jaay ba léegi. Mhm. man nag tey bu gisee ndax tax ma toggal ko fi euh, euh, man ak moom mi ñu dalee ànd yàgg na. Mhm. waaye gis naa ni wax dëgg fa yàlla. garab la goo xamante ne am naa fit publicité ko waaye am naa fit tamit waxal ko. ndax bu koy defar moom mi nga xamante ne moom mooy ndey mbili gi di Serigne daf koy ñam ba pare. te nee la doomu kilifa la waaye tamit doomi soxna la mhm. te bi mu jàng jotee da koy jàng macha allah ba génn dem réew tugal daal di koy jàngal lu ñu koy composé maanaam lu ñu dugalante jabare ba nga xamante ne du am benn effet secondaire mhm. xam nga léeg-léeg nga jël garab goo xamante ni garabu kattan la nga naan ko presque boobu di metti ah. wala nga ngay miir wala mhm. nanga déedéet garab bi mos xam amul loolu amul loolu mën nga ko jël ci ni nga ko bëgg a jëlee mhm. te doo ci am benn effet secondaire boo xamante da nga koy jàngat sa biir yaram ki ko jël kooku amaana daa xëroon mhm. yaa ngi comprendre mu waroon a jël ñaar kuddu benn kuddu mhm. mu daal ci yegg waaye lootoo loolu loolu sax gars yi koy wax rumeur waaye maanaam Euh, dafa mel ni ku moo xëroon xëru boppam rek moo xëroon xëru boppam waaw waaye amul benn gàllankoor waaw mi ngi noonu amul benn gàllankoor leeral mhm. nañu ko bu baax a baax mhm. pour ñi nga xam ne ñu ci doon def ay vidéo coow li bari fu ne mhm. euh, loolooy di bos xam mu moo euh, tey jii nii ma dugg ci lu tax maanaam tey jii nii bu ma seetloo du ma gilisee TikTok ñaar ba ñetti vidéo yoo xam ne gisuma ay célébrité influenceurs yi ñëpp di ci def ay vidéo te defe naa ni lu nit booy jaay lu baax day mhm. fës te fi mu doon nii fës na ñëpp jël di ci def ay video mhm. tey jii nii lan moo tax ñëpp nit ñi bëgg ko. waaw xam nga garab du fen. Mhm. maanaam euh, li nga xamante ne moom mooy garab bi. maanaam bu waxee dëgg rek ñëpp dañ koy daal yéeg dëgg la looloo waral mos xam tey waxuma la influenceur bi sax waaye ba ci artiste bi. ñu ngi koy jël. tey jii moo xam célébrité la moo xam influenceur la ku ci gis wala TikTok boo dugg doo romb ñaar wala ñett. te gisoo li nga xamante ne moom mooy Moussa xam mu gis euh, mu daat mu daat koy taf di wax ci Moussa xam. te li tax man la Moussa xam entreprise la. Moussa xam dafay employé ba employé li nga xamante moom mooy ay tiktokeur ay influenceur mm-hmm. mboolem koo gis muy tiktokeur wala muy influenceur mbo Moussa xam jël na la fay la xaalis. yaa xam ba xam da ngay gérer côté communication noonu la tamit jëlee ay ndaw yoo xamante ni dañuy seytu sax wàllum li nga xamante ni moom mooy fi ñuy war a def mos xam moo xam ba xam dañu koy xool ci ay laboratoire gis ni lii lu war a baax la bu jigee foofu sase ba ñu koy dugal mhm. ay importé lay doon yoo xamante ni du jigee Sénégal dañu koy daal di defar ba mu baax indi ko ka kay sol na mu war a comportoo loolu lépp mos xam da cay def loo xamante ni maanaam moom mooy da yàq temps da cay daal di bàyyi temps ki ko commencé ki ko composé di Serigne Fallou Mbacké mhm. moom mi nga xamante ne moom koy defar dafa commencé ci moom mhm. moom nee dafa dem jàngi ba jàngi jotee dem xam garab gi bi mu ko xamee ñëw rek toog jël ay mbuusam dëbbu jël ci garab gi ci gënn mhm. pare sol ci ay mbuusam daan ni jënd leen déedéet dafa dem jàngiwaat ba pare ut ay machines yoo xamante ne ñoom ñooy saytu li nga xamante ne moom mooy mus xam léegi bu ñu ko saytoo ba pare yaa léegi dafay jaaraat ñeneen ci ñi nga xamante ne maanaam mooy laboratoire yi ñu xool ni ba xam kii di ko jël est-ce que dose bii nii attan na ko wala nangam nangam donte sax ñëpp ko attan. Mhm. waaye pour est dina am effet secondaire bu ko jëlee est dina am gàllankoor parce que nee naa la nga jël garabu kattan boo xamante mhm. nga koy jël ba pare mu lay ay bopp yu métti déedéet mosam doxul ci loolu. moom di la wéral. Mhm. mu daal di dem xool ba xam xool ay laboratoire dàkk ci dugal ginnaaw bi nga ko dugalee mu ut ay sachet yu rafet yu bakkan yoo xamante ne da nga koy xam xool ni lii. xaalis lañ ci def mu dugal ko ci ay sachet bu ñu ko dugalee ci ay sachet ba pare ñu xool ñoo xamante ni ñii ñooy dox si livreur yi maanaam dem livrer ji hmm. bi ñu jugee ci loolu ñu xool jaaykat yi nga xamante ni ñoo koy jaay ndax nee na la mos xam mboolem foo ko dégg ci àdduna hmm. benn numéro la am te numéro boobu moom mooy ngay jot hmm. te boo ko jotee moo lay orienté nga wax dëkk bi nga nekk tey mi ni yow moom ngay jot en personne boo ko jotee mun la foo nekk nga ne ko man de maa ngi France waaye fii laa nekk sa France mu jox la numéro bi nga xamante ne moom moo nekk kooka ca France. nga dem jëli ko foofu. Hmm. waaye nekkul région bu ne wala dëkk bu nekk daa am ku ñu fa samp ba pare jox la numéro. déedéet mais loolu war nga ko leeral. parce que hmm. arnaque yi dafa bëri trop. Hmm. gis nañ ko fi du benn du ñaar. gis benn produit di dox. Euh, euh, euh, kenn ñëw jël taf ci numéro am bu ko defee woote ne maay sëñ fàllu borom mos xam maay sëñ fàllu borom mos xam mhm. tey jii nii pour nit ñi prudence mhm. yooyu noonu déjà numéro bi sax mi ngi ciy barre d'écran bi mhm. ñëpp war nañ ko mën a xam benn numéro la moom ngay jot moom moo lay orienté ci temps ak temps tey boo doon boo leen boo leen doon baaxee leen pour que ñu gën a vigilant pour que tey jii nii ku ci bëgg garab bi euh, euh, nan ak nan ak nan ngay def amul ay maa ngi mbooroog maay sëñ fàllu maa ngi ndara ak yooyu noonu tey lan nga leen mën a wax ñoom waaw li ma leen di wax mooy garab bi nga xamante ni mosam comme ni ma ko teewlee tey sama waa ji di ko waxee waaw maanaam mosam li ngay dégg tur bi yëpp influenceurs yi di ko taf yëpp tiktokeurs yi di ko taf yëpp mu nekk à le monde mm-hmm. benn numéro la am benn numéro benn numéro léegi numéro boobu noonu moom mooy numéro commercial bi nga xamante ni ndey mi li ñi moo ko yaral boppam muy Serigne Fallou Mbacke mm-hmm. te moom la surtout sëñ Balla Caro la mu sant Mbacke toog bu ko neexoon addee ñëw jël addee mais dafa tourné yoraatal bi léegi bi mu yoreetee boppam numéro bi yow mi nga xamante ni yaa nekk euh, Fuuta. Mm-hmm. nga xamante ni yaa ngi nekk Fuuta xam nga bu ñu ne teg fa kenn koo xamante am na kenn sax kuñ fa teg. waaye joxuñu ko numéro. waaye da ngay woote Sëñ Fallu direct moom ma nekk Touba. Mm-hmm. moom moo lay woo wax la fan nga nekk. nga ne ko man kat maa ngi Fuuta. Mm-hmm. mu ne la léegi jëlal numéro bii nga xamante ne moom moo nekk Fuuta nga woo ko. macha allah léegi boo ko woowee jot benn ndawam ndawam boobu noonu waxta ni ngay def ba jot ci garab gi. yow mi ni yaa nekk Thiès Serigne Fallou ngay daal di woowaat boo ko woowee mu orienté la ci Thiès jox la numéro bi nga xamante ni kooku moo nekk Thiès nga woo kooku daal di dem Thiès waaye nekkul maanaam boo demee Thiès am na ko ñu fa nekk rek jox nañ ko numéro mm-hmm. boo demee Fouta am na ko fa nekk rek jox nañ ko numéro déedéet mm-hmm. moom nga jot ci ndey mi léegi moom ci jëmmi boppam moom Serigne Fallou Mbacké Mhm. moom ngay jot ci boppam mu orienté la foo mënta nekk ci réew mi ñu la fii nga mën a jëlee garab bi moo waral foofu garab bi kenn du ko mën a piraté mhm. kenn du ko mën a piraté kenn mënul wuy naan man Serigne Fallou borom mosam ndax numéro bi moo ko yoral boppam mhm. mi ngi noonu benn numéro la te mi ngi noonu ci barre d'écran bi mën ngeen ko woo Serigne borom mos xam tey ñu toog fi nag ku yàlla may ci euh, côté boobu muy euh, ñu gën ko xam ci moomu nekk chargeur de communication Serigne Fallou borom mos xam mu ñëw tuuti ci hémorroïde parce que dafa am interne am externe bu mhm. nëbbu ak bu feeñ mhm. tey jii nii mos xam mhm. euh, euh, traitement am pour hémorroïde tey jii ni bu fekkoon mën nga ñu cee indil tuuti ay leeral waaw xam nga mos xam dama ne la entreprise waaye li ci gars yi gën a xam da ci impuissance sexuelle bi lañ ci gën a ràññee waaye mos xam biir entreprise bi ci boppam am na si loo xamante ni dañuy traité li nga xamante ni moom mooy hémorroïde. Hmm. léegi nag hémorroïde dafa am interne am externe. Hmm. léegi hémorroïde boobu noonu boo woowee ki nga xamante ni moom mooy ndey mbili gi di Serigne Fallou Mbacke borom mos xam. Hmm. moom da jox ay traitement ay traitement man mën naa toog fii rek di wax di waxal comme neex waaye man fajuma mënumaa faj xaw ma nu ñuy fajee. waaye donte moom mbàkke la waaye nag am na si loo xamante ni borom jotu mayu ko ko dëgg la man mi nga xamante ne maa ngi ànd ak moom ma defal ko ko mhm. ndax nee la man la wax gën a yomb ma toogal ko fi comme si que koo xamante ne maa ko yor charge ko mhm. léegi li nga xamante ne moom mooy émorite li nga xamante ne moom mooy externe ak interne bi mhm. boo wooyee ki nga xamante ne Serigne Fallou Mbacke borom moxsam ci numéro boobu ñu la officiel da lay wax ni traitement bii ngay jël nii ak nga koy jëlee te boo ko jëlee te loolu lépp ci biir entreprise mos xam la. ci biir entreprise mos xam la ci entreprise bi la. muy émeraude interne ak. externe boo ko woowee ci numéro boobu noonu nga xamante ne moom mooy yow. Hmm. moom ci boppam moom nga jot nday mi ligi hmm. mu jàppale la ci li nga xamante ne moom mooy émeraude bi. Hmm. ba pare jox la traitement boo xamante ne nekkul loo xamante ne koy mu defal traitement boo xamante ne boo ko jëlee. fii ba abadan doo tax amati li nga xamante ne mooy émeraude. macha allah mi ngi noonu yéen ñi nga xam ne amee ngeen ko mën ngeen ko contacter. mu am loo xam ni gars yi être am na ñoo xam sax ñi ngi ñi ngi ñi ngi lam-laame naan mënta ne mhm. parce que euh, tey wax nga ci wàllum impuissance mhm. gis na tey jii nii euh, euh, ñëpp ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy jënd fu ne mhm. ba ci yokk awra est-ce que tey jii nii mos xam mën na soo demee ci entreprise ba pour bëgg a yokk lu awra ñi nga xam ne dañoo cëkkale ak ñi nga xam ni dañuy jàpp seen awra yi di mballu yooyu noonu ba seen ba ba ñuy gaaw a seen bopp ak lépp est-ce que tey jii nii loolu def ngeen ci ay saafara bu baax waaw euh, yokk awra sëñ bi sànq bi mu si toogee di waxtaan ak moom man ko hmm. waa sëñ bi est-ce loolu lu mën a nekk la mu ne ma waaw lu mën a nekk la waaye ci kaw mu doon traitement ok xam nga nee naa la man aw ma xam-xam amaanuma waaye am naa sama kàddu waaye man dinaa déggante ak moom xel bu gàtt hmm. may waxtaan ak moom ko sëñ bi mais est-ce que kiy lu mën a nekk la ma bien lu mën a nekk la te ci hmm. traitement lay daal dox léegi bi mu ne ko traitement lay daal di doon moom li nga xamante ne moom mooy yokk awra mun ma koy def traitement moo xam ki nga xamante ni day mballu ba maanaam ba ba awram dellu mhm. mën nañ ko defal li nga xamante moom mooy d' information mhm. traitement bi nii lañ ko defee te boo fa jaaree li nga bëgg ci awra di nga ko daal di moom yokk awra ndoxum mm-hmm. siti nga tënkal ñu tuuti parce que fi ñu doon li ci des bareetul temps bi tënk nañu yooyu noonu tey boo ma doon ñëwal tuuti ci ndoxum siti mhm. waaw ndoxum siti euh, ci li ma wax dafa am ñaari yoo xamante ne dafa génn loolu sax buñ ma ko waxul mhm. mboolem kuy nit xam nga ko xam nga ko dëgg la ndoxum siti dafa am génn mhm. am boo xamante ni génnul bi nga xamante ni dafa génn dafa am spécial traitement wu boppam bi nga xamante ni génnul dafa am tamit spécial traitement wu boppam mboolem boo gis ci jàngoro yoo xamante ni jàngoro yi kajoor la maanaam ci wolof comme ñun ni ñu koy daal déggee bu ci nekk dafa am li nga xamante ni moom mooy traitement am mm-hmm. muy ndoxum siti muy hémorroïde muy yokk awra muy impuissance sexuelle mm-hmm. dafa doon loo xamante bu nekk traitement la traitement la yoo xamante nag boo déggee da nga koy daal di jël waaye traitement la yoo xamante ni doo ko jël ba pare tourné ñu naan la non la ma jëloon dafa dellu si waat déedéet mm-hmm. da nga war a jëlee da nga def ko comme ni nga ko war a suñu borom taqale ko feebar boobu noonu. ok ndoxum siti moom lu mën a nekk lu mën a dañ la ci entreprise bi nga xamante ne moom mooy mos xam. Mhm. ci société bi nga xamante ne moom mooy mos xam. lu mën a bu soobee suñu borom ku mhm. sa jàngoro daan ne saafara. ngi noonu. Mhm. kon yéen ñi nga xam ni yéen a may suivre mën ngeen ko daw topp ji numéro yaa ngi noonu. Euh, euh, euh, ñi nga xam ne ñoo ne ci diaspora parce que fi mu toll nii biir Dakar moom lëmbe na fi amatul lu muy prouver foofu ñi nga xam ne ñoo ne ci diaspora bi sànq ko nan lañ mën a def baam ko waaw comme li ma la daal di wax rek xam nga produit bi dafa doon produit boo xamante ni euh, jamono ji fii ci Sénégal. Mhm. ràññee nañ ko bu baax. moo xam képp koo xamante ni yaa ngi ci réseau yi di suivre. Mhm. moo xam plateforme bi ñuy wax TikTok la moo xam Facebook la moo xam YouTube. mbooleem plateforme boo xamante ni mi ngi ci àdduna. Mhm. mos xam mu ngi fay jaarale ay produits am waaye ki ma la li ma la daal di wax mooy mosxam dafay loo xamante du nit ki rek moo tudd mosxam wala benn garab rek moo ci tudd mosxam mosxam faa nga mos ko ba pare doog a xam a xam parce que sëriñ bi loolu la ko daal di dippee mhm. faa nga mos ko ba nga xamante yaay jëmmi nit ki ba pare doog a xam te mosxam société la boo xamante dafay dox ci impuissance sexuelle mhm. dox ci li nga xamante moom mooy hémorroïde dox ci li nga xamante moom mooy yokk wooteel ci numéro boobu nga xamante ne moom lañ la officiel boo ko wootee di jot ki nga xamante moom mooy sëriñu boppam bi ça veut dire que boo déggee mën sëriñu boppam nga xamante moom mooy composé mooy produit mooy dugg ci laboratoire daal di xool saytu yëfam mhm. moom nga jot boo ko jotee ba pare bu fekkee mbooleem foo mënta nekk ci diaspora bi mhm. nekk garab gi laa bëgg di nga toog jékki-jékki garab gi ñëw say tànk macha allah te du nekk jawar ñu naan la noo xaaral mhm. nekk moom boo wootee ci numéro ba jot sëriñ ba pare mhm. ah, dina la daal di wax yabal fii wala mu jox la ni numéro diw bi ñu mhm. boo woowee kii dina la ko daal livré kon fépp fu waaye mën a nekk ci àdduna mhm. moo xam la moo xam ci biir Sénégal la moo xam biir Sénégal la ci àdduna benn numéro mooy mars mooy numéro boobu nga xamante ne moom mooy 78 bi 78 bi 100 boobu nag doon na numéro boo xamante ni wax dëgg fa yàlla numéro boo xamante ni sëriñ bi moo ko yoral boppam téléphone bi puce bi mu ci moom soo ko woowee nag fépp foo mënta nekk ci àdduna dina la wax ni fan nga nekk nga ne ko maa ngi fii mun la lan nga bëgg moo xam yokk nga bëgg moo xam loo ci bëgg nga ne ko garab bi laa bëgg mu orienté la fa nga nekk yabal sa garab mu ñëw ba ci yow nga daal di fay mi ngi noonu loolu leer na trop mm-hmm. nee naa la ku yëy yax ba yëy yaxu bukki jàppal ni yëy nga yaxu yëykatu yax mm-hmm. te yow mi euh, werante wala yow mi sikki sàkk mm-hmm. wool mos xam di nga xam bu baax a baax waaw mi ngi noonu di leen jaajëfal saa suñu yéen ñi nga xam ni yéen ñu doon topp suñu ay plateforme bu baax a baax tey nag ñu toogoon nag ki nga xam ne moom moo di euh, di jëmamoo gérer euh, li nga xam ne moom moo di communication wu Serigne Fallou Mbacké borom mos xam tey ba gëstu jotee mhm. dem na gëstu ji waaye ba wuti xam-xam jotee dem na wuti ci xam-xam mhm. ba jàng jotee dem na jàng ji mu doon sëtu wàlliw doon mhm. ku yàlla baaxal bañ na ko ba macha allah ñemewul sax di génn ci écran yi parce que fu ngeen ko fekk mu nga tëju di liggéey nekk ci e, e, e, njëriñu jaam ñi di ko jaajëfal bu baax a baax tey lan ngay tàggatoo ak lan ngay wax gaa yi nga xam ñu ngi leen si waaw tey boo gisee maanaam tey ma ñëw porte combat bi di waxal ki nga xamante ne moom mooy Serigne Fallou Mbacké mos xam lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt bu dee cent pour cent la am na benn cinquante pour cent boo xamante ne ñu ngi may bàyyi xel. Mhm. waaye dafay baax day du surtout kilifa goo xamante ne maanaam mënul toog ci télé di wax naan sekk c'est-à-dire parce que yooyu da cee nekkul waaye ñun ñi nga xamante ñoo faree wax maanaam ñun ñëw mhm. euh, euh, mu xam nañu li muy defar mhm. moo waral tey ñu toog fii di ko waxal li nga xamante ne moom ay gërëm beneen bi da ciy bokk ci li nga xamante ni mooy loolu jamono jii di def rumeur ñu naan li ñuy dëppee rumeur maanaam c'est-à-dire que am amul loolu du dara loo xamante ni peut-être xër la waaju xër la ndax nag impuissance bi nag am na doole doole goo xamante ni wax dëgg fa yàlla mhm. euh, bopp mboole bu koy jël booba nga jël ko ci anam bu dayo ndànk ndax mhm. sinon kooko bokkal moom wax dëgg fa yàlla dina wàcc lal bi <laughs> ndax euh, sëñ bi def na ci def na ci dose boo xamante ni wax dëgg fa yàlla mhm. képp koo nekkal ah kenn dootul say maanaam kër gu mu dugg wax dëgg fa bu la neexee nga tëdd ba 1 daal di joxe dépasse ndax yaa fay buur waaw garab la goo xamante wax dëgg fa ñu ngi koy seetu ci ba seetu jotee mu ngi koy dugal ci ay laboratoire loolu ñu ngi koy gis mu ngi koy seetu di seetu garab yi di xool composants yi di xool dosage yi di ko dugal ci ay pot yu rafet mhm. ak ay sachet yu rafet yoo xamante ku ko gis xam ne lii yu mucc ayib la ba pare di ko def ci di ko def ci loo xamante maanaam euh, tey dafa dafa dafa rafet parce que tey boo xoolee bi ngi ci tij ay cabinet yoo xamante ni dugg cabinet bi xet gi neex gi lay dal ki ni lay dal mu mel ni pharmacie mm-hmm. maanaam mu def loo xamante li pharmacie doon def loolu la indi ci garabu wolof maanaam mm-hmm. def ko ci addom bu rafet boo xamante ni boo duggee da xam ni kii mi ngi liggéey mm-hmm. maanaam garab bi da cee njëkk a fa la boo leen wootee kii di Serigne Fallou Mbacke ci boppam ngeen jot mhm. te boo leen ko jotee wax dëgg fa la lépp loo leen bëgg dinañ leen ci jàppale mu neex yàlla macha solo trop mos xam moom xam naa foog mu ñëw mos ko nga ko ñëwalaat fii mhm. ba teg a am a euh, mhm. euh, am solo euh, mi ngi ngi jëriñ gars waaye aussi mi ngi jàppale jeunes ñi nga xam ne tey jii nii nee ñi ngi woon ci TikTok bi wala leneen ak leneen mm-hmm. fayeeku wuñ ci waaye moom mi ngi yëkkati ay moyenam di leen jox mm-hmm. mu mm-hmm. lu ama ama ama am solo ñu koy jaajëfal bu baax a baax Serigne Fallou euh, Mbacke borom mos xam nee naa la surtout wàlliw la di ko jaajëfal numéro baa ngi noonu ci barre d'écran bi di la jaajëfal di jëmoo aussi tey euh, jox nga communication ku ko jar ak ku ko mën parce que nee leen euh, nit ku nekk ak la nga war a def da ko koy bàyyeel waaye loolay métier di ko bëggee bu baax a baax di jëmamu mhm. di leen jox dig daja ba beneen yoon incha allah jaa ngeen jëf